waaw ginnaaw bi ñu santee yàlla juddu ci yonante bi di sant suñu ñaari waajur bu baax di sant suñu dëkkandoo di san suñu am di jàmm di sant sama mbokk lawbe yëpp waaw man Mbaye Gueye Junior comme sax bi ma commencé bëree yàgg na waaye nag jàmm day nangu ndogalu suñu borom tardement bi yëpp yàlla moo dogaloon ne fii lay jaar yàlla dogal ma jaar sama papa Mbaye Gueye nekk école di Fass mu doon sama papa lool bëgg ma lool ma nekk fa tamit ma xam ko lool mu xam ma lool yàlla dogal nag ma nekk fa ba samay waa koñ te léegi làmb affaire rek koñ la sama waa koñ bëgg ma récupéré ma ma génn si génn bu rafet di ko sant Père Mbaye Gueye bu baax waaye dafa dafa mel ni damaa jógee ci kër papa dugg ci kër papa mi duubalees tamit sama papa la yow Tapha Gueye am na loo ci xam am naa combat le man ak jam céeri bu kayaar waaw man sama victoire bi ma ko calculé démb maa ngi toog di ko xalaat dafa mel ni xamoon naa ne di nga ma si tontu sama combat fi ma nekk nii am naa 12 victoire 4 défaites. ma gën a marqué ki ma mooy coo coow li bëri woon lool ñu ne mënuma ko daan ndax boobu il est nekk na si yoonam di dem mi Vandaam ndax boobu koo wax mi ne Vandaam moo la mën boobu liggéey naa lu liggéey naa lu xale du dooy liggéey. ok fan nga toll ci seen début saison bi euh, ci entraînement naka ngay préparer ci combat ci wàllu entraînement. waaw bi may doo ko départ doon naa def trois séances bi ma demee ba am combat ma bàyyi ko bi ma demee ba am combat deux séances lay yenn saa yi bu ma naree ñëw musculation du ma matinaalu du ma dayu fajar damay nelaw ba ay 10 heures ma ñëw salle musculation liggéey lu baax ñëw toog su ma waree tamit dem physique yi du ñëw musculation ndax ñaar yooyu mënu may ñëw di musculation di defaan ni temps récupération bi doo ko am régime alimentation bi doo ko am tamit vitamine yi doo ko am tamit da ngay claqué rek. sa adversaire Diam Terry est-ce que xam nga ko. waaw donc gis naa ko muy bëre professionnel la wax dëgg yàlla ndaanaan la mun na xeex mun na bëre te ndaanaan la tamit. Euh, gëm na boppam te ragalul. Mm. waaw gëm na boppam ragalul. Euh, ndax xeexkat la aussi. waaw xeexkat la ndaanaan la day xeex day bëre. bu la woowee ci xeex nag. waaw mu woo ma naar si guuxum sow rek. Hmm? waaw bu ma woowee ci xeex woo naar si guuxum saw bu la sàccee nag. waaw mu fekk ma fa. dama ragal mu sàcc la parce que ndaama la. waaw waaw lépp mun naa am xam nga guerre moom boo fay jëm. armé lépp rek teg waaw. waaw mais eh, taay bu mu am. jëm ci dafa gàtt trop euh, est-ce du la poser waaw waaw waaw non jam ceeri mënu maa posé problème ndax. nu mu gàtte loolu laa wax ah. Euh, maa ngi contact ak ñoo xam ne daal am naa yaakaar jam ceeri mënu maa indi benn problème ci gàttaay. ok d'accord ah. ban tànk la jam ceeri di jiital bu bëri. moom gos bi lay jiital. gauche bi lay jiital. waaw ah. di woo na gars yi si war a jàpp ah sebes di woo ay sebes Ibra Fall Malick Gakho Ndeye Ndiaye Tyson Moussa Gissé di woo Sall Elage sama gars yi yëpp di woo Issa sama mag Pape Gadiaga Ndeye Ndiaye Tyson. mère Khady Balla Gaye du ma ko fàtte benn yoon mère Khady Balla gay sama yaay la sama xarit la di ko woo bu baax a baax di woo monsieur le maire bu Kër masaan di woo tamit Daouda Yëmbal Noor baaragay sama xarit ah Souleymane Ndéna Ndiaye ñëpp dama leen woo pour ngeen ñëw jàpp ci combat bi yéen ñëpp di woo tamit waa Yëmbal Route de Boune surtout nag di woo place Pape Touré sama gars yi nekk foofu place ñoom Mody boobu place ñoom Io ak sama boy yi nekk mbedd Fass waa mafia bi di woo mbedd marché di woo Baye Fall yëpp yow jam téer yow laay waxal sama diggante yow du yomb am na lu am na fu ñu laalee woon xam nga loo ca daj dégg naa la nga wax ne léegi xale màgg na am na doole la ñu laale woon fàtte naa ko sa kawlax loolu féete naa ko ko de léegi nee nga màgg nga am nga doole dootuma la ko daanee waatee incha allahu rabbi defal ni nga defoon rek bu ar bi suuflee ñëwal sama tànk bu xaar dara bu ar bi suuflee rek ñëwal sama tànk yi Mbackiar gépp di nuyu sama grand Moustapha di nuyu waa maa ngi sama 18 combat tey bii mooy 19 combat 3 défaites laa am te dama ñaan yàlla mu yem fa. Mbaye Gueye Junior laay bëree ba muy bëree booba xale laa def na kaar fii lu nekk sama kanam sama papa moo daan tëgg lamb moo doon président lamb ji kon su ma demee ba jël avance am ci kawam te du may moo tax ma jël avance am damaa def preuve dox ba ak ci kawam doo ko jël ko ku ne ma woon dama bëri moom ko gëm. kon gëm-gëm la ak jom ak fulaak ak waa Kayar ñu jàppale ma nag ñaax ma moo tax moom fi jël combat bi su ma xalaatoon ni mënu ma ko daan du ma jël avance am. du ma lekk avance am. mais Mbaye Gueye junior dañoo gis ne di ngeen ci taay. Hmm. ci gabar yi. loolu la mën a di yow. xam naa ko depuis bi ma nekkee xale ba tey ji ñëw na fi làmb di bàkku may jóg di ko di ko mu ni mu wane ama bara bi ni lii rek lii rek du sa morom. ma jug ma jug nii dama jug nii ñu téye ma mu ne nii Ama Baldé sama sama Ama Baldé bi moo leen ëpp. moom Mbaye Guèye Junior moom Mbaye may jooy loolu noppeegu ma. di jooy di gëm-gëm di jooy sama sama combat bi ko waxee dama cee sawar ndax na Ama Baldé moom ëpp kon tey jëmm ji ëpp ma. Ama naa ba tey jëmm ji ëpp ma. Mbaye Guèye Junior nga xam ci moom ban façon bëgg lay bëri moom. mën na bëri magum làmb la. waaye li may ñaan mooy mu taxaw comme bëre bu muy bëree si zigzag yi tak tak tak tak ñëw nag bu mu def lool damaa bëgg ba bu ne yëpp ñu taxaw mu taxaw def bañ a def benn série exemple nga def mu taxaw xeex man bëre ak man ñu daje. Ah champion ñi est-ce que ñi ma nga xeex Mbaye Guèye Junior ma ko jàpp te xeexuñu. Ah dafa gaaw dafa rapide moo tax ma dem ma dem ma génn dem liggéeyi loolu te ñi ma doon kontaan ñoo ko ëpp jëmm fuuf. ok d'accord fan nga toll ci ces séances d'entraînement. fi mu toll nii dernière séance laa nekk ndax lu ma amul woon mënatuma ko am dernière séance yi ma war a bëree combat bi ci laa nekk nii. bi yan façon séance d'entraînement nga doon def. dama doon xëy matinalu liggéey physique bu tar su ma ñëwee nelaw tuuti démusculation xëccu lu diis xëccu ma te leen lu oyof loo xam ne damay luurloo lu diis laay xëcc lu diis gan laay xëcc tey soo wootee woon mbuur tey dinañ la ko wax lu diis gan laay xëcc su ngoonee ma contact ay luur yu pour mën a jàppanteeg moom mën a defanteeg moom bagage. contact nga ko ëpp Mbaye Guèye Junior yow. fuuf kooku fan la am Sénégal Mbaye soo xamee jaata boobu Bombardier kay xam nga xam nga xam nga boobu assurance daan na Mbaye Junior ñaari yoon ah maa ñoo nekkoon dama bëgg a yóbbu ci kàttanu yàlla di leen wax nag ñu ñaanal ma bu baax ñoom ñëpp parce que dañ ne bu jëf teewee wax ji bari amatul njariñ nan bàyyi wax ji te jàppale seen doom seen rakk seen jarbaat seen lépp jamteet amul lu dul kayaar tey su may rente di génn di dem fu nekk di entraînement di daj lu métti kayaar moo tax Tunjandeer moo tax tey bu sama bopp rek rek rek rek rek Tuubaa laa dem tëdd kër gaa ngi ni yàmbalam